jërëjëf sëñ Faye kon fii ñu taxaw ji ci jamono ji ñu toll moom mooy école élémentaire Khayar Meng doon école française bi nga xam ni xale yu ndaw yi ñoo fiy jànge waaye li nga xam ne moo tax ñu taxaw fii dafa am jamono yi nga xam ne moom la sëñ Touba doon ñëw fii école bi dafa tuddoon l'école des fils de chef et d'interprète avant lool en 1855 mi ngi njëkk a tudd l'école des otages képp ku ñu téye woon comme otage fii lañ lay indi di la redresser mu toog ba ci yàgg ñu soppi ka ndax amul woon budget boo xam ne doy na ñu soppi ka en 1875 tudde que l'école des fiches de chef et d'interprète Sëriñ Tuubaa nag ba mu wàccee le 12 août 1895 fii ci Ndar ci gaar bu njëkk bële ndax gaar bii nekk sama ndejoor jamono jii la sunuy jamono waaye Sëñ Tuubaa ba mu fay wàcc ca gaar bu njëkk ba la woon gaar ba dagg nañ ko tey def ko ay kër ba mu wàccee otraay da ñëw ba côté bii buy tourné soog a dellu ginnaaw ci vagon biñ ko dugaloon vagon marchandise bi bañ ko indee ba fii si lañ ko wàcce fii nag doonoon a benn marché bu ndaw mais bëriwul woon ni ay naar ñoo ci ëppoon di nga xa di nga xam ni di fi jaay même waa kër Ahmed Khoury Sène amoon na turandoom ñu daan wax Ahmed Khoury seen fii la fasante woon ak sëñ Touba kóllëre waaye ki nga xam ne moo nekkoon ci école bi mi ngi tuddoon am euh, asawla Ahmed Khoureyssi waa këram ñoom ñoo façon nag moom kollere ndax am na ñu daan jaay fii ci marché bi waaye Ahmed Khoury Sène nag nga xam moo nekkoon interprète arabe français fii la nekkoon intendant moom la ñu dressé woon benn liste ni Serigne Touba comme que dañ la jàpp yow si ñii nga sañ a ñëw ba ñuy wax naan diw diw ba egg ci Ahmed Khoury Sène mu fettasu ñu ne Ahmed Khoury seen turu Ahmed ba moo tax mu ne nañ ko yóbbu foofu ndax tur ba ñu indi ko fii nga xam ni boo duggee ci école bi fa ca gën a jëlëge gën cee sës fa lañ ko indi woon bu njëkk ba nag nekkul woon foofu mi ngoon ci cour bi fii defoon na fi benn jàkk boo xam ni daf ko defoon ak ay xeer rek di fi julli waxtu juróom nit ñi képp ku dégg ne Serigne Touba ma nga ndar nga jël saxaar boo ñëwee ci waa Balakos gi nga dal fi bu ngoonee ñuy kuréel di yëkkati xasida yi di ko digtal sëriñ Touba ñuy dem di dem nit ñi di gën a bëri tubaab yi ni déedéet comme que mbokkam yi ñu ngi ñëw di yëkkati xasida nañ ko génne foofu yóbbu ko fi nga xam ni mooy fu ñu jógee léegi muy laboratoire waaye laataa loolu fii la ko Eumeu Ndiaye Mabéye fekkoon Eumeu Ndiaye Mabéye fii la ko fekk ak ay pétition pétition yi ñan ñoo ko defoon magi ndar yi kaadi yi fi nekkoon boroom xam-xam yi fi nekkoon ndax ndar nag ku ko wax wax dëkku diine diine amoon na si solo lool Alaaji Malick si fii la njëkk a wasifa fii la njëkk a amee zawiya ci ci Sénégal kon ndar ñi bo ñu téye woon bopp bi ay nitu diine lañu woon moo tax Cheikhul Khadim ñoom sëñ Ndiaye Sarr fii lañ nekkoon ñoom euh, ma Ndiaye maa béy ñoom Mam As Camara ñoom sëñ Malamine Seck ak ñeneen ak ñeneen nga xam ni Sénégal ñoo gënoon a ŋànk diine Limaamul Mahdiw fii ci Gendar fi la daan gëtee di teer nga xam ne kon Ndar moo doon euh, fu nga xam ne daal ñu ëpp ci ñooñu diine fi lañ daan nekk kon sëñ Touba yàlla dogal ma Ndiaye maa béy moom ak magi yi ñu def ay pétition ba ñu defee ay pétition ñëw mu présenté que que ni que ñoom de dañoo ñëw ngir ñaan tubaab bi pour mu jéggal la ñoom ñëpp signé signé nañ tubaab bi nee nañ boo signé mu jéggal la sëriñ tubaab ni que ëmma njaay maa béy mun ko labayka mu ni ko ëmma njaay maa béy mun ko labayka mun ko ëmma njaay maa béy mun ko labayka mun ko xoolal diggante ki ñu tooñ ak ki tooñ nga dem ci ki tooñ naan ko jéggalal ki nga tooñ dama yaakaar ne bu fekkee jéggal day am ki ñu tooñee ko war a def mu ne te xet di jooy sëñ tubaa ni koy jege sil randu sil mu ñëw mu fekkoon sëñ tubaab bi ni asiru ba kay weer mu daal di jël kayit ya jox ko ko ni ka seere nga ma si ma njaay moom mu ko tubaab bi jàpp ma damay liggéeyal Moustapha te dinaa ko liggéeyal ba ñëw te doo fi faatu tiyel lii muy ma mal abraari ina asiru nga xam ni ba mu jëlee daf ko karmat denc ka juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer ak lu topp mu dégg ni sëñ Tuubaa ñëw na mu taxaw di seet di seet ba gis ci gaalam ya mu amoon mu gis ci mbind ma ko sëñ tubaa joxoon muy génn ci mbedd mi di mel ni ku teqaloo sagom naan ko moo ko waxoon moo ko def moo ko waxoon moo ko def moo ko waxoon moo ko def waa Ndar yëpp jaaxle ñëpp yéemu ci kilifa gu tol noonu nekk si mbedd di yuuxu waaye doo sëñ Tuubaa moo xajul si dara lam ko waxoon rek di nga fii doon seede dinaa dem ba dellu si doo fi faatu fii la xewe woon sëñ Moussa Ka dina ko wax sëñ Ëmma Njaay maa bee la woolu cim taax wan ko assiru kon fii lañ ko ko wone woon muy école bii nga xam ni mooy école Khayarmengue de ko doog nekkoon école des fils de chef kon ci taarix rek fii la sëñ Tuubaa njëkk a wàcc en 1895 ba ko tubaab yi jàppee kon loolu lañ amoon ci tënk rek di sant yàlla nag ci màggal gi la tey le 5 septembre ni nga ko màggalee ànd ak ak yéen fépp fu Serigne Touba jaar rek ànd nañ fa ak yéen topp taarix bi fésal ko wane ko parce que ñu bëri nag dañuy am habitude di ñëw le 5 septembre bu ñëwee yem ci bureau bi yaakaar ni màggal gi yëpp foofu la Serigne Touba nag ndar day ndaram. am na ñu net li nii moo bu ma doon gane si waat àddina ndar laa koy defee moo waxit ni ndar ca kanam moo ñu seedeel nii bu ngeen xamoon li yàlla def ci ndar di ngeen fi rusa dox ak ay daal ngir ormal béréb bi kon ndar ndaru cheikhul xadim la ñun ñëpp ay taalibe cheikh ahmadou bamba xadimal moustapha kon du sax ndar tuubaa ndar la ndax boo xoolee tuuti taarix ndar mi ngi tuddoon Daaree Salaam si Daaree Salaam boobu la ndar ñëw Abdallah ibn Yaasin moo fi njëkk a ñëw dafa dugg xalwa di ñaan yàlla bërëb bu neex a jaamu yàlla ngir mu gis ko pour jaamu ko suñu borom won ko ndar fukki at mu koy seet gisu ko dem na Mésopotamie dem na Tombouctou dem na fu ne ba mujj mu découragé toog benn bis mu daal di géntaat ñu ne ko toppal tefes gi moom mi ngi dëkkoon Tanger Maroc mu topp tefes gi di topp tefes gi ba ñëw fii ñuy woowee tey Langue de Barbarie foofu la xamee ne kon ñëw na ca fañ ko waxoon ndax ndar moom mooy géej gu moo am géej gu nga xam ni dafay jublu xibla di kabbar di nodd di damm di sujjóot ndar rek ak am seetal beneen géej bu la neex mu daal di xam ni ñëw na mu toog fee nga xam ni moom mooy Langue de Barbarie dafa fa jàngale alxuraan di loo ñi nga xam ne ñoo jógee Gànjol jóge Waalo di leen di tuubal ñu toog ba si yàgg Abdallah El Fass benn xaritam fekk ka fa ñu àndandoo tudde bërëb bi Daaree Salaam loolu avant l'arrivée des Portugais la sëñ Saalihu Mbàkke si boppam nee nañu ne ndar goog de tuddul woon ndar Daaree Salaam la tudd sëñ Murtala Mbàkke nee nañu ne ndar Daaree Salaam la tuddoon kon Louis Louis moo xool ndar mu neex ka mu xool ni mu bindoo mu daal di koy tuddee turandoom Louis neuf moo tax ñu tudde ko Saint-Louis waaye fii Daare Salaam la tuddoon waaye bis ni que tey Touba Ndar la kon loolu lañ amoon si luñ ciy barkeeloo. sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla bu baax nag di dallee sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ko gërëmaat ci bis bii nga xam ne ñun lépp luñ am bis bi moo nu ko may maanaam Sëñ Tuubaa bu ñëwuloon Ndar gi luñ bëgg duñ ko am dikk gim dikk Ndar moo tax ñu am liñ bëgg lépp kon nag ñi ngi doolee sant tey jii mi ngi mel ne màggal nan ko nan ko daan màggale waaye comme ci ndigal la ñuy dox ni ko sëñ bi bëgg rek lan ko defee màggale ko ni ko sëñ bi bëgg mooy jàng alxuraan jàng xasida tudd salaatu ala nabi ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér waaw noonu lañ ko màggale te di ñaan nag yàlla bu déwénee li nga xam ne moom mooy moo gàllankoor ba tax nan ko bëggoon a defee mënuñu koo defee suñu borom dàqal nu ko ba mu sori lool ban mën a defal sëñ Tuubaa li liñ bëgg di ko liggéeyal ni ñu ko soxlaa ndax yii ay ay ay teq-teq la yoo xam ne du lu baax nan nan ko suñu borom dàqal ci barke Seexul Xaddim ba nit ñi bëgg liggéey la Sëñ Tuubaa ñu di ko ko defee kontaan nan nag bu baax waaw sant nan bu wérit nag te ñaan yàlla ah, mu dolli ñu fee eh, may fanu gudd may nu wér yo yàggal fi Sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir yàggal ko fi lool mbokki taalibe yi nga ànd de suñu borom dimbil leen ndax li ñuy liggéey nii man wax dëgg yàlla maa ngi leen doog a gis waaye dañ maa daaneel maa ngi koy doog waaye daaneel nañ ma ndax li ñu li mu wax ci sëñ Tuubaa ñu ko woon yàgg na ndar dëkk bi nag ñun ñoo ko bëgg waaw ay taalibi la ne fi di fi daan suñu doole di fi liggéey waaye ñi ngi ñaan suñ borom defal ñu fi ay xéewal yoo xam ne liñ fi bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ bi may nu may nu fi xéewal ubbil nu fi ay wërsëg ban man ko fee defal loo xam ne danañ xam ne lii ñun ñii jóge ca àll ba ñëw liggéey fii ñoo ko ñoo ñoo ñoo am ay ñoo am xéewal yi ba defal ko fi sëñ Tuubaa ñaanal leen nu ko ñoo am ay xéewal buntu wërsëg yi ubbiku barke sëñ Tuubaa